ci wàllu vacances citoyennes yi li ñu ci mën a wax barewul bu fekkee dañ jàpp ne dafa euh, yàq la loolu ñi koy wax xam nañu fu ñu féete ñii politique ñooy wax yàq la waaye musugu ñoo gis euh, ñeenti at yi nga xamante ni président Macky moo ne ci boppu Sénégal gis nañu pré euh, vacances citoyennes mu changé gis nañu li ñu ci def mënuñu ma wax ne vacances citoyennes yi yàq la ndaxte vacances citoyennes bu fekkee dañu dem ci ay dëkk yoo xam ne école ya dañu daan woon ay ndaw jóg. tabaxkaat euh, école ya defaraat ko defar yokk fa ay toilettes defar lépp ay centre de santé yoo xam ne kenn mënatu ci ay faju faju ba nga xam ndax dafa yàq woon délabré ay jeunes jóg daxa defaraat ko tabaxaat ko peinturaat ko rafetal ko ba nga xamee ne tey jii boo ca duggee da ngay gën a euh, da ngay di nga gis changement ba fa amoon ak munuñu ne yàq la ndaxte. bi ñu tàmbalee ba léegi ay ay téeméeri téeméeri téeméeri projet yi ndaw à travers le Sénégal financé nañ leen ba ndaw yooyu tey jii ñu ngi commencé di liggéey lu ëpp euh, juróomi téeméeri millions euh, ak ak ak euh, ak ñaar fukki junni. lu ko ëpp def nañ ko ci projet euh, ci financement projet jeunes yi tey jii ba jeunes yooyu tey jii ñu ngi dem di liggéey volontaires yi nga xamante ni ñoo nekkoon euh, ci ci mbay mi jëlaat nañ leen ba tey jii euh, filière maïs yokk nañu dooleem doole goo xam ne kenn xamul nu mu toot nañu ko dépassé woon te nañ ko fekke woon te loolu ci ren ji la tàmbali lu tax ñu mun ma wax la yàq la du yàq kon ñi nga xam ne ñoo nekk ci politique yi ñoom ñooy wax ne yàq la bu leen neexee nag ñu wax ne yàq la mais ñun gis nañ ne vraiment vacance yi bu déwén yi dinañu gis bu déwénee ñu koy nattaat ñu xam ne vacances yi def nañ ci loo xamante ni déwén su ñëwee bu ñu cee yokkee as lëf rek lépp dina mën a yéwén ñi ngi koy sant nag président Macky Sall ndax xalaatam la ministre Mame Mbaye ministre de la jeunesse di doxal ñun ñii également nga xam ñoon ay ndawam ci loolu la ñu nekk bar bokk na ci activité yooyu mooy activité bi ñu def tey jii nii nga xamante ni moo di euh, depuis journée dépistage yi nga xamante ni moom la suñu sœur Mounina Wade bu hôpital régional Ahmed Sakhir Ndiéguène bu Thiès jàppale ñu yéwénal ko yombal ko ak disponibilité boo xam ne dafa mucc ayib sax Mounina amul nuñ koy gërëm gërëmee daf sax duñ ko jéem a gërëm parce que dafa ñibbi si moom mu ni na suñu sœur la ñoo yarandoo ci ci ci koñ bi fii la jógee kon tey jii dellusi bi mu dellu si koñ bi am na solo te jigéen ñi nekk sama ginnaaw tey jii ci suba ba léegi ñu ngi koy wax gërëm nañ ko sant nañ ko à travers ma voix donc ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu la amoon lu ñuy barkeeloo ci wàllu kàddu ñu jé jégalu te sant ñëpp gërëm ñëpp. ginnaaw bi nu sant yàlla ban maa ngi tudd Basirou Sall. je suis le président de la fédération des associations pour le développement de Thiès ñi nekk sama wet ñi ay membre lan donc vraiment ñi ngi rafetlu bis bi bu baax aujourd'hui le trois dañoo def journée de dépistage gratuite jagleel ko suñu yaay jigéen ñi dépistage du col de l'utérus donc jagleel ko jigéen ñi te vraiment mu doon loo xamante ni ñu ngi koy rafetlu di sant jigéen ñi bu baax a baax a baax gis nañ tey seen taxawaay ak seen présent ci ci journée bi journée bi nag su amee ginnaaw yàlla suñu santé muni na ñi ngi gërëm suñu sœur muni na wàdd bu baax nekk hôpital régional ndax bis bi am na si taxawaay bu mat mu mat sëkk bi ñu koy dox ñëw ba wax ko ni ko ñum kat dañoo bëgg a taxawal benn jour boo xamante ni ñu ngi ko jagleel jigéen ñi si dépistage du col de l'utérus daf ñu ni du yam foofu lépp loo xamante ni pathologie jigéen la lépp lu laal jàngoro jigéen bis boobu noo ko def ndax dafa ñibbi si si koñam fii la yàgg yaroo màggee fi donc vraiment mu doon loo xamante ni lu ko soxal la trop waaw ñu ànd si dox si ak ay mbootaay mbootaay jigéen ñi sopp sa jëkkër ñu taxaw ñu si baax am yeneen mbootaay yu fi nekk tamit ñoom maire euh, ndey jaw ñoom Yande vraiment jàpp nañ si journée bu baax a baax ñu ngi def mention spéciale monsieur Lamine Aïcha Fall waaw di gaynde Kajoor bis naka tey ñu ngi koy woowee gaynde ndax taxaw na si bis bu baax a baax a baax a baax lépp loo xamante ni moo moo moo doon euh, jagle pour bis bi taxaw dafa ni bi ñu ko waxee ñëw ba si moom tiis ko ko dafa ni lépp luy charge jël na ko parce que moom. dafa nekk si dafa nekkal population bi zone nord bu HLM Thialy kese du jaxaw ñëpp sentir nañ présence am lépp loo xamante il est toujours au côté de la population chaque fois su ñëwee weekend mi ngi si wetu population bi amul weekend bu muy ñëw tëdd këram day dem di laaj population bi nee na képp koo xamante ni yaa ngi dëkk Thiès waxul kese zone nord wala HLM Thialy am loo xamante ni lu jagleel jeunesse bi la jagleel population te waxoo ko ko baalu la ko. kon ñu ngi koy defal mention spéciale di ko gërëm bu baax a baax a baax a baax bis bi su taxawee ginnaaw yàlla moom la waaw sant nañ ko bu baax di ko gërëm li ñu bëgg a xamal daal li ñu lancé ñum ñum jeunesse bi ñii la ñuy continuer ñu ngi lancé nag message au président de la république vraiment ñi nga xamante ni ñoo fi nekk pour la population ne leen gën am taxawu loolu lañ bëgg ñum suñu bébét loolu la na gën a wane boppam si loolu parce que ñëpp xam nañ ko au niveau de Thiès ñëpp xam nañ ni mu fi nekkee ak li mu fiy def ñuy wax nag vraiment danoo bëggoon bis ni ka tey fi mu nekk nag yóbbu fu ko gën a kawe ndax moo gën a am man jot taxaw population comme ni ma ko yàgg defee gën nekk si au chevet de la population ndax loolu mooy mbëbëtam loolu nag dañuy lancer président de la république pare na nag pour lépp ñum jeunesse yi nga xamante ne c'est la fédération c'est pas seulement fii mais au niveau de Thiès am na ñu dëkk parcelle am na ñoo xamante ni ñu dëkk ba Médina Fall am na ñu dëkk ba xew ja bagaat donc ñëpp a ngi fi taxaw taxaw aujourd'hui c'est toute la jeunesse thiessoise qui lance un message au président de la république donc si loolu loolu lañ bëggoon message boobu dégg ko ñi ngi ñi ngi ñi ngi wax nag si mbirum vacances citoyennes yi vacances citoyennes yi pour ñun lu baax la parce que déjà rek la fédération bénéficié na si benn formation en entrepreneuriat vraiment bi nu paree si loolu jox nañu ay ay attestation yoo xamante ne jeunes yëpp kontaan nañu ñii taxaw samay ginnaaw nii ñëpp ku si nekk si ñoom bénéficié na si journée boobu noonu vraiment ñu formé nañ leen formation bu am am solo tàggat nañ leen si lépp loo xamante ni. mi projet ak micro projet képp koo xamante ni yaa ngi doon yaa ngi doon def benn activité gën nga comprendre activité boobu nan nga koy defee ba ñu ko fructifier si kaw loolu ñu ngi organiser wu sax di def loo xamante ni mooy ay projet te suñu paree dinañ ko jébbal ki nga xamante ni moo ko war a yor pour ay financement donc kontaan nañ si loolu bu baax a baax a baax sans plus tarder nag ñu ngi defaat encore une fois mention spéciale si sunu gaynde waaw vraiment muy Lamine Anne Chafal ñu bëgg ngeen tàcc bu baax a baax waaw monsieur le ministre ministre lañ bëgg danoo bëgg ñu fal ko. waaw jox ko nombre tànk yoo xamante ni ñun ñëpp jeunesse dinañ sant suñu bopp parce que mësuñoo bàyyi ginnaaw xam nañ li fi ne waaw référendum yi passé dessine na ko te lii ñëw moo ëpp moo dàq ndax kees ñëpp xam na ni moo fi nekk toujours présent jamais absent moom rek lañ ko mën a seddal fii à Thiès waaw donc ñu ngi